ci euh, màggalu sëñ Fallou gi euh, li ñuy wax tungu naru teew ñi nataal te bu ñu nee diw baax na ñu ni ndax mbokk yaa ko wax ku ne gis na kii toog di way jurum Maam Ndiaye Savon yaakaar naa ci sama micro bi rek lay waxee mu defoon fi benn vidéo boo xamante ni di def ay seede ci doomam euh, ñu bari vidéo boobu touché leen tey bu ñëwaatee ci màggal gi nag ànd ay mbokkam ñëw gungeel doomam ah wax dëgg yàlla nag du ñàkkum sànni ci ay kàddu yaay nuyu naa la. maa ngi lay fay guy gi. ñu ngi sant yàlla bu baax. mais maman nii nga def. waaw nii laa def rek ci sama bisu doom ji. kontaan rek macha allah waaw kay parce que daaw defoon na ko ren ñu defaat ko nii alaaji Fallou moom ku koy lebal na ko lebal lu baax ndax loo ko lebal dalay fay waaw may koy sant nag di ko gërëm bu baax a baax kontaan ci moom kontaan ci moom trop maam mënuma koo fay bañ nañ ko ba dan naan maam man moom laa bëgg loolu na yëpp xam na ko parce que fi ma teg la. maam daf maa bëgg safoo ma faale woo ba àdduna bi yëpp xam loolu ma koy sant di ko gërëm di ko ñaanal rek barke Seydina Mohamed ñaan du doy chaque jour maa ngi koy ñaanal nee naa ko demal ca kaw ca kanam bu ragal dara gàcce ngaalaama parce que lekkoo dara bàyyi say famille kenn xiifu kenn marul barke Seydina Mohamed papaam gërëm na ko man mii ji ndayam tamit gërëm naa ko trop barke sëñ Touba maam jaaxalu ma billaahi jaaxalu ma benn yoon ma kontaan ci moom nag bisam bii yàlla na yokk ba mu yëg ko lépp lu mu am ren bu déwénee yàlla na yokk ba àdduna bi yëpp teg ci seen bët parce que barki sëñ Touba ca kaw ca kanam rek billaahi mooy li ma ko wax rek gàcce ngaalaama. tey maam bés bi doon bés boo xamante ne nii bés bu mu fonk la hmm. ñu gis coono yi nga xamante ne tamit da koy def donte borom bés bi it lépp loo ko ci defal rek daanaka fayoo ko euh, maam geste yi muy def ci bés bi di jël ay teraanga di ko indi di ci daj ay coono ngir euh, daagu digganteem ak sëñ Fall yow mi woy juram lan ngeen ci mën a wax. ja digganteem ak sëñ Fall moom dafa yàgg parce que bi mu amulee dara. la bëggoon sëñ Fallou te yàlla rek tax ba léegi nii gàcce ngaalaama lu mu am rek yàlla ak yonent bi ak ñaanu waajur ak ñaanu baay ak ñaanu alaaji Fallou Mbacke ak mbokkam yi barke sëñ Touba maam lekkul dara bàyyi benn mbokkam mbokkam yëpp ko gërëm billaahi li muy def nii ci mbokkam yi la ko njëkkee ñëpp lay defal maam bàyyiwul kenn maam daal dañ koy ñaanal rek gudd fan ak wér yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam a lañ koy ñaanal. Hmm. xam naa ne bu ma soree yaay moom tam mu tuuraay xéewal <laughs> d'accord lan ngay wax sa lan ngay wax sa mbokk yi nga xamante ni ñëw nañ tamit accompagner la say jigéen ñi nga dendal euh, ñëw ànd ak yow aussi tamit. kii moom sama ami d'enfant la ñun ñoo bokkoon fi ñuy sëy yàlla boole ñu ñuy ànd te yàlla rek tax muy Dieyna mi ma koy sant di ko gërëm ku baax la kii sama rakk la ñoo bokk nday ak baay maanaam topp sax si man am na ko topp ci man ba pare muy doog a topp moom mooy yaayu Fatou Kiné ngeen di te yàqu ci dara xoolu si dara billaahi hmm. ah bés bi de xanaa kontaan ci di ñaan yàlla ñu commencé bi bisimilah rahmaani rahim ko ci alhamdulilah rabil alamin di sant bu baax miis te xam ne wax dëgg fa yàlla liggéeyam wallu si na ndax bu dee coono rek daj na ko te xamoon na ne lii yàlla dina ko fay miis bu amul woon doom du ñuy tudd ci àdduna man ma xaaj te xam ne say dara jaru ko fi macha allah tubaarkàlla mu nekk nit ku baax. maam ku ko gis kaf nga koy gisee ci écran mais nit ku baax la te ji koy baax boobu ci yaayam ji la ko jëlee nekk nit nit ku mën ku mën a sëy nag di sëykat dëgg di sëykat pur ndax yaayam sëy rek la xam yàlla nag mooy weddi lépp ba yàlla dogal tii tey jii mu am mais macha allah tubaar tubaarkàlla di ko ñaanal rek mu koy def ay ati ati at ci daraja yonent bi sëñ Fallou bi mu woote mu yokkal ko ay xéewalam lu baree baree bare bare maam nag ay mbokkam gërëm nañ ko de barki sëriñ Babacar Si ay mbokkam ba ko njëkk gërëm nag keneen doo ko gërëm Euh, donc mu